xasaayit bis bi di bisub xasaayit mu sant waa daara yi ne ñu yor daara yi ñoom nañ yendoo jàng ci biir daara yi alxuraanu karim te pénc yi jumaa yi jàkk yi kër sëriñ Tuubaa yi ñu daje fa dafa jàng xasaayitul sayxul xadim di yëkkati ak di rajas noonu nu ko sëriñ bi defe woon sante woon defe nan ko ni nga xam ne sunu pës seef su gàtt si su lompañ si li nu tollool jéem nañ ko ci waaye moom mi nga xam ne nag mooy sëriñ Touba te nañ bàyyi xel ne barab bii bi nuy teg xeeru jumaa ji ci ndigalul sëriñ Saaliwu kii fi nekkal sëriñ Touba tey moom la yabaloon mu ñëw teg ko fi ñu bari teewe nañ ko waaye yàlla dina taw feexal mu ubbi siwaat ko dina tawfeexal feexal dinu bàyyi xel bu baax dinu jox ndigal nu di ko jëfandikoo kon yaakaar naa ne ngërëmul sëriñ bi nun ñépp noo ko bokk dëkkandoo yeewi bi mu ni yeewi danoo yeewaat rekk ndax gën dégg li wax suñ diggante sunu borom moo nu bind moom nu mooma leen boppam nu di ay jaam war koo jaamu waaye loola suñ yoon nekku ci ñun nag Sëriñ Tuubaa la suñ yoon nekk kon moom tënk nanu jatag nanu yeew nanu ci Sëriñ Tuubaa waaye day la Sëriñ Abdou Lahad feeñ na tey jii waaye feeñoon na démb xol yu nongu nee na lool la Sëriñ Tuubaa xam xamut marchandise moo lamb xamut itam nawet ba manqué bugaantu xamu ko ndax diir bi ñu taxawalee néegub yàlla bii ak léegi xam ngeen ne nawet bu ko taxawal amu fi Pastef rekk ko taxawal kon wax dëgg yàlla bu nu sëriñ bi joxe bisub xasaayit bii te ñu def ko nii ñu ko defe war na maa yëkkati kàddu ngir li nga xam ne dañoo wane ne maa njiitul ñi fi nekk waaye Serigne Moustapha mooy jëwriñ ji fii mooy ji mooy lépp bu yàlla dogalee mu nekk fi nekk fi ak sunu wayjur muy Serigne Modou Mbacke bàyyi la ci noonu dalal na sunu xel bu baax mu nekk feek ay doomam nekk feek ay rakkam muy Cheikh Saliou Mbacke mii nga xam ne moom lañ teg jullit jumaa ji ci moom mu ànd ko Seexul Xadiim mii nga xam ne doom la ci moom sëriñ Moustapha mii nga xam ne li mu yenu nañ ko bàyyi xel bu baax yitte yi nit ñi ñu di wax chef de quartier bu ci yemoon képp lim ci def ku ne xam ne na def na ci njàmbaar fu waay jaaxlee mu jóg fu waay soxlaa mu jóg te loolu mooy sun wàll ci digganteeg sëriñ bi ak taalibe yi mu wëlbatiku nekkaat imaam joo xam ne fu mën a ci dëkk bi miir bu xasee jot amatul soxla fenn booy wax ba une di jot bokkatut ca wax ja gëlëm na déggatul ngir fas yéene ñëw jiite liggéey bii nga xam ne sunu borom moo na ko sant ci néegub yàlla bii ndax dañuy xam ne kat sunu boroom ñaari barab képp la am ci kaw suuf benn barab bi mu am ci kaw suuf mooy néegub yàlla bii ak beneen bu ni mel waaye ñun ñi nga xam ne nag noo ko wuti ci kaw suuf it nan bàyyi xel ne am na barab ci nun muy xol bi xol boobu nag Sëriñ Tuubaa daana wax ne garab la gu fee gu nekk ci diggu àll ndox nekk ca nee na ñaar ñi kenn mënu leen caa dajale kéwal ak rëbb bu yor fetal ñoom ñaar mënuñoo àndandoo ci sago toogandoo fa xol bi mooy ker gi kéwal gi mooy sunu boroom rëbb bi mooy àddina ku bëgg àddina ku nekk xamal ne sunu boroom xam na fa kéwal gi saa su ñëwee fekk rëbb bi day daal di dëpp moo tax sun xol yi li nu sëriñ bi wax rek léegi nan bëgg sëriñ tubaa rek buñ ko bëggee suñ yoon nekkatul nag ci keneen waxuma laa iblis lahin mi nga xam ne suñ borom da koo rëbb kon nun ni nu soxla woo mooy sëriñ tubaa rek kon nag nii nga xam ne ni la ñu jëfe woon démb tey doore ñëw na ndigal lii nga xam ne sëriñ bi moo ko def war nañ leen a sant nag ndax jërëjëf da cee bokk nag ndax sunu borom képp da xool bi mu bindee asamaan yi bind malaayika yi ci kaw bind suuf si teg ko ci kaw ndox mi wàcce fi jinne yi di fi yebal malaayika yi loola taxul mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba mu bindee aadama ñu wuutu ko ci kaw suuf la door a wax alhamdulilah rabbil kon loolu ñu itam suñ yoon nekkul ci alhamdulilah rabbil alamin loolu du cant kon nag ñun lu di ak cant suñ digganteeg yéen mooy yég yëg nañ ne sëñ Tuubaa képp leen ñor waaye moo na ñor nu yëg ndax jumaa jii kat xam ngeen li ko taxawal pëstef képp la waaye du man kon loolu jërë ngeen jëf nañ ko baax ndax ban koy tàmbali de yorunu woon lu ma téeméeri junni waaye ku fi ñëw da xam ne day lu bari dem na ci waaye kenn jéemut a xam sax li ci dem waaye teewul nañ seen juróomi dërëm yi nga xam ne bu dee jigéen ñi ña ko tàmbali woon ci soxna moom i jëm rahmatullah alayha te loole mu doon taxawal mu ngi yaatu lool te lu ci waay def nag na xam ne moo ngi ko fa fekk muy dem ba mu jàgg tu tànk yi fekk si ko kon noog sëriñ Moustapha ak Serigne Modou sëriñ Serigne ak sun njaboot gi noo ngi bokk di yëg nag li ngeen nu defal te xam ne yéen a tax néegub yàlla bi taxaw waaye bis bii nag xoolal ni ñu ci jàppe xéewal yi fa tabarkàlla te ñi nekk bitim réew ak ñi nekk ci réew mi nangeen xam ne góor ñi ak jigéen ñi ak tu tànk yi ku ci def sëb dërëm yëg nañ ko ndax sëñ Tuubaa yëg na ko te loolu xam nañ ko baax ndax lebiwun fenn te jaaxlewun fenn te danoo jàppoon ne kat kenn ku nekk day togg andi moo ne fangu ko de te gis ngeen liñ fi daane ci ay nag te ay gone rekk ko def te moo ne waxuñ leen ko de waaye nag li Sëriñ Tuubaa waxoon day dañ koo gis ci yéen noon na samay gone gën samay mag samay gone dañ ma fi dut fekk te dañ may dégg te dañ ma yemale kenn kon yaakaar naa ne ñun ñi nga xam ne ay mag lan weesu juróom-ñaar fukki at jëm kaw xam na ne suñ doom yi fa tabarkàlla ak suñ sët yi li sëriñ tubaa waxoon am na ci yéen bu baax a baax ndax feeñal ngeen ko ci bis bii ci wàllu wax ak jëf ak dox waaye li ci ëpp nag mooy bennoo gi ngeen bennoo boo demee ci jigéen ñi ak gone yu jigéen ñi ñépp benn lañ doo gis ñu xuloo doo gis ñu xëccoo lu ñu war a def dañ koy def nga ñëw nag ci tur tànk yi la gën a tuuti nga xam ne amaguñ fukki at sax ña ngay def ay kuréel waxuma laa nag yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk di suñ yaakaar ci yitte àddina yii kon bu fekkee ne def ngeen li nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ne samay gone gën gën samay mag ngeen def fi lii wax dëgg yàlla nun day rafet nañ ci njort bu baax sëriñ Moustapha moom sëñ Saliou danoo jëkk daje kër soxna yi moom Seyul Xadim di ko ñaanalaat ma ne ko man day la sama ma la waxoon ci njaareem wala boog ci barab ne samay gone gën samay mag gis naa ko ci yéen ñii mu ne a ah, xanaa xamoo nu Serigne di defare ma ne ko ah boo ma ko waxee ma xam ko mu ne ma ne poste courant bi di taale ay làmpam noonu la Serigne Touba di defare poste courant bi bu jant bi sooyee ba muy taal ay làmpam poto ba mujj mooy njëkk a tàkk bi sës ci moom muy mujj a kon Serigne Touba daa defar sët yu mujj ya di defar mu ñëw moo tax ku mujj gën a rafet gën a baax loolu nag ñun ni ko xamee mooy sëñ Moussa xam ne ca dara yaakaar naa sëñ Modou Mbacke mi jàngi woon bitim réew xam ne ca dara sëñ Saliou xam ne ca dara li may bëgg a wax gis nañ ne yonant yi naa alayhim dañ daan jur ay wàlliyu wàlliyu daan jur buur buur moom lu mu jiite mu yàqu buur moom am saay saay lay lay jur àddina yi yàqu suñ borom andiwaat yeneen yoonam Seexu Xadim nag feem bi mu am moom bi mu ñëwee dafa fexe bay defar la mujj ba nga xam ne defar moom amatul ci moom waaye rafetal rek moo ca am ak pas-pas bi képp waaye Sëriñ Tuubaa nunguwut ku koy yeesalaatal ndax tajdid ci moom rek la jëkke waaye ci moom la mujje ndax kat koo fi gis ci tu tànk yii da ngay foog ne gone Sëriñ Saaliw yu jóge woon xel koom ca lañu bokk bu fekkoon ne waa xel koom rek ay mel nii yaakaar naa ne ku jëw ji nga daaneen gii gis ni ñu mel fa tabaarkàlla ci ab yar ak teggin te yemalewuñ ko ci pénc mi kepp seeni way jur xam nañ ne seen doom yee leen gën fuuf ci wàlluk jaamu yàlla ndax ñoom fii ñu toll di jaamu yàlla bu ñu xoolee 1960 la ko weesu ay 50 di jëm suuf ñu bàyyi xel ne ñoom ñii ku ci mosaa di jaamu yàlla mag ñi dañu leen di wax ne léegi ngeen dee gone du jaamu yàlla day bàyyi ba doon mag te léegi gis ngeen gone yeenu gën a mën a fees jumaa yi boo dee lu baax ñoo ñoonu ca jiitu gis ngeen teraanga yii fi ñëw yëpp tu tànk yi ñoo ko fi andi ak jigéen ñi jigéen ñi yéen day maa ngi leen di beral ak cant cant goo xam ne ci sama xol laa ko tibbee ci xolub Serigne Moustapha lañ ko tibbee rawatina nag Serigne Saliou Mbacke ak Cheikh Adim mi yor daara yi fii xool leen daara ku ne xam ne ne donga ya ñoo bëy yu ndaw ñoo yem ci yàq te kenn du jàmbat te xam ne nit ñi ngi leen di yàqal boole koog di leen fóotal te xam ne ab donga ñun xamuñu woon dong bu am mbubb sax xamuñu ko woon ñun bi ñu jàng ñun 54 lan dal yaakaar naa dem na ba jamono yi ci la ñuy door gis nag dong yu ñuy fóotal foogoon nañ na dongatu am mbubb ñun bu sedd bi ma ñëw ni ñuy faje ab sedd dañuy dem ca taal jàng ba rankalikoo fa bu taal jàng ba fee feesee dañuy tegaloo ngir tàngooru nit ñi mooy tax duñu ñu yëg euh, sedd bi waaye mbubb xamu woon ne xamu na woon ne mbubb ak dàll ak regg foogoon nañ ne dong du ko def kon bu yàlla dogalee nag daara yi nekk fii ak yeneen yi ni demee du ñu xiif du mar te itam duñ tilim jigéen ñi gàcce ngalaama noo ngi leen di boole ki nga xam ne lu mu yëg Serigne Touba yëg ko kër Serigne Touba yëgal yittey jigéen ñi Serigne Touba yëgal yittey tu tànk yi Serigne Touba yëgal te yittey taalibe yi ñi nekk ci bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi kenn ku nekk am na yitte ju muy xëy ak ju muy fanaanoo ak joo xam ne jii bu ko amee wóor na ko ne foo joxoñ mu dog ko kon nag Serigne Touba taalibe yaa ngi ne noo ngi nii ñu nekk bitim réew na leen jox ba ñibbi bu ñëwee itam ñi ñu fa fekk nañu am bay defal sëriñ Touba loolu noo ngi koy ñaan bu baax a baax tey dañ ko yëgal sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa kenn du ko ñaan ndax musta euh, may kenn bu fekkee ne day li nu rëyoon dañoo rëyu làmmiñ waaye lam seq ak Cheikh Anta ba jox ko Daaru Salaam xamuñ da ko koo may wala déet waaye nun turu may lañ ko ko wax da ko ko bàyyee waaye sëriñ Tuubaa nee na moom li mu yor moomu ko da koy jaay sëriñ Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadilou sëriñ ma Roqaya Bousso sëriñ ma Sàmba di rakkam la dajale woon ak ñu ni deme ne leen lii fi ne dama ko kaññe daal ne nii jëbi daal wax ne nag moomu ma ko na bàyyi xel ne ndonu du ko fa jële doom kon du ko donn doom du ko fa jële kon sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou xam ne am na lu xew mu ne fii rakk du ko fi jële sëñ Massamba xam ne moom moom lay wax ak ku ni demee mu ne fii jarbaat du ko fi jëlee mm, sëñ Mor Roqaya xam ne kon ndekete moom lay wax kon sëriñ Touba ba mu tàmbalee di woote ak léegi li mu yor ku mën a doon ku nekk dangay def aslam tutëb si di kaññi mu jox ci li mu yor waaye du ko maye waaye nag jënd ngeen jënd ngeen bu wér ndax jënd moo tax ngeen mën a boole seeni xol. déggatoo genn gone guy saaga déggatoo kenn koy xeex jigéen ñi xulootuñ ñépp dañoo bokk bokk ay pexe waxtu ne ay mbootaay wax bu dee gone yi ñi ngi def ay kuréel ñi ngi def ay daayira foo dem tuut tànk yi gën a tuut sax ñi ngi def ay tur ay ay kuréel loolu nag baaxu Sëriñ Tuubaa la ak bëgg gi nga xam ne xol bi moom li sëñ Muntaxa seere léegi rek da raqaju ci lu may bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg nag moom la sun borom gën a bëgg te sun borom day wax ne ngeen bëgg ma ma bëgg leen moo ko gën ndax iblis bëgg na ma waaye dama koo bëggut daal ne sëñ Tuubaa daal di wax na nag man de ngeen bëgg ma moo gën ma bëgg leen ndax man ñëpp laa bëgg waaye li tax ngeen di rawante ci seenu bëgg la kon sëriñ Tuubaa noo ngi nii jëlal suñu bëgg taf ko ci sa bëgg loolu lañ lay ñaan nu xam ne lii nag barab baa ngi nii du caagin de dañoo wax ngiraaneen de taalibe yi yëpp lañ wax ak dëkkandoo yëpp sëriñ Moustapha di jëwrin ji ngeen bàyyi xel ne lépp loo xam ne lii sëriñ bi yëkkati na ko nañu xam ne fii barabu sëñ Muntaxa la waaye barabu sëriñ Tuubaa la fii rek Xaadim Mbàkke Cheikh Xaadim ñoom ñi duñ ko doon bu ma fi jógee Moustapha Mbàkke du ko doon muy sama rakk kenn du ko doon sun borom moo ko moom wa anal masaajida lillaahi bu nu amee tawfeexi Sëriñ Tuubaa boole na ko ci bo ci ci ay péncam kon ñu itam nag fu fi waay mën ne ak lu mu sori sori sori nañu xam ne rawatina na moom sama mbokk yi moom sama mbokk yi bu ma ko waxee xam nañ muy wàllum néeg ndey waaye loolu daje nañu fi ak taalibe moo nu fi daje waaye ñoom dañoo jaay nag ñuréel gi nga xam ne moom laa am ci ñoom muy wàllub nijaay ak wàllub doomi nijaay ñépp dañ koo jaay jënd ko ak taalibe mbay ñas ñoom a ngi fii di samay nijaay mooy seen sëriñ seeni doom may seen sëriñ waaye xam nga ne loolu sëñ Touba rek ko man kon ñoom jaay nañ li ñu am lépp jënde ko sëriñ Touba ñu itam nag noo ngi nii sëriñ Touba noo ngi nii kon nag na lépp saafaraw jërë ngeen jëf luñ ci teg waaye man daal li ma bëgg nga dogul ma ko mu nga ñaanalal ma gone yii yàgg na maa wax ne man de ñëwuma benn nit ci quartier bi ndax samay gone kenn mësuma woo police wala gendarmerie ne ma sa gone yee ña nga ci lu lu neexul yàlla foo leen fekk ci lu baax lañ nekk ay daayira ay jàng yooyu rek moo nekk seen bopp xew-xew bu xew fii muy tabaski muy korite organisation bu rafet lañ fiy def organisation gis yàgg gis sa bopp tey jii te ñàkkuma ci dërëm keneen ñàkk lépp ñoo ko defal seen bopp ak mbokki jullit yi mbokki taalibe bi yëpp kon nag li ma leen li may ñaan nga ñaanalal ma leen ko wërsëg wu yaatu wu rëy na ko sëñ Touba sotti ci ñoom sotti ko ci ñun ñëpp wërsëg wu yaatu wu rëy na ko sëñ tubaa sotti ci ñoom ak fan bu gudd ànd ak wér gi yaram wu ànd ak wér gi yaram nañ ko am te waaw te itam nga ñaanal ma leen koñ bi ñëpp nañ boolu daayira fi nekk yépp ngeen nekk ànd nekk benn bi daayira ngeen wut nekk benn tur loolu daal laa bëgg ngeen dimbali ma ci ngeen def benn mbooloo yenn yu gone ngeen def loolu daal laa ñaan ngeen def na nekk menn mbooloo bu leen séparé ñii nekk fee ñii nekk fee na ngeen nekk benn nit benn say loolu daal laa leen di ñaan bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg neen ko barke Seexul Xadim bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg dangeen ko am da ngeen am fan gudd da ngeen wér da ngeen am wërsëg barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf léegi maa koy ñaan